C'est moo dangereux nag ci parce que sa bakken sax xaj na ci si fatt boobu pour le moment mom épidémie coronavirus bi Chine la yamagum fu mu nekk nii laal na quelques pays wa mais pour le moment épidémie c'est circonscrit au niveau de la Chine te vraiment ñi ngi ñaan yalla que ak action yi OMS nar a euh, déroulé que ñu mën vraiment fexé ba mu mu baña diffuser dal au niveau surtout au niveau de l'Afrique voilà parce que sinon prise prise en charge bi gaa sax fu mu nekk nii ñun ñëpp ñi ngi jël suñu matuwaay yi war voilà ñi ngi jël matuwaay suñu état yi instant bi euh lepp li war pour fexe infection bañ bañ fi dugg ñu koy def parce que loolu moy premier moyen de prévention moy fexe infection baña a yegg ci dëkk bi voilà des moyens ont été mis en place surtout au niveau des aéroports au niveau des frontières nga xamné suñu suspecté cas rek très rapidement dañ ko mëna jël en charge waaw parce que loolu dal moy pour le moment moy meilleure prévention bi dal fexe infection ba dugg ci dëkk bi. en général euh, dafa nek virus yo xamné li ci ëpp ci mala ci mala yi lay nek waaw muy ay xaj wana euh, golo yi ci all beeg jaan waaw li ci ëpp virus yoy ci ci mala yoy ni ngi leen di gis mais comme dafa am dëkk yo xam comme Chine ñom genre mala yoy parfois ñom dañ koy lek, dañ koy jëfandikoo waaw moo tax parfois pour que virus bi infecté da fay yomb voilà nak euh bu xasse ba japp nit mom comme ni nga ko gisé ci actualité bi propagation bi dafa gaaw walanté bi mom gaaw na torop torop mom wa lool motax nak rapidement en quelques mois Chine am épidémie bo xamné ne vraiment mi ngi mi ngi lor lu bari dal fofu noonu boo jegee ku ko am rek la fekk nga nga jekk ko muy wax wanu mu sëqat waa léegi virus bi day jóge ci moom rek daal di ñëw ci yow waaw léegi yow avant parfois balaa ngay xam ni kii am na ko sax fekk wàlla na la ko déjà ba pare voilà moo tax ñu ñaan nañ ñaan yàlla daal vraiment mu jàpp lañu virus bañ a bañ fee yegg si waaw sa dënn bi lay jàpp ngay sëqat en quelques heures ni rek bo fajuwul en quelques heures sax mën na la commencé di fat sa dënn bi di fat do mën noy voilà léegi suñu réagirul très rapidement rek loolu mën la mën la lor mom première prévention bi moy instant bi li état tek moy fexe suñu frontière bi mom buñu amé cas suspect rek rapidement ñu jël ko dans les structures spécialisées yi ñu identifié ñu jël leen en charge loolu moy première mesure de prévention bi voilà

voilà parce que moins tu es en contact avec ay nit moins tu es exposé nga tok sa kër wa boy naree guen nga utiliser masque hmm so so guené boo ñëwee balaa ngay lekk balaa ngay lal dara nga nga raxas sa loxo ba mu set voilà so s'il le faut soy guen nga yore sa antiseptique à tout moment ngay def sa loxo antiseptique voilà vraiment loolu peut-être bo comme dëkk yi nga xamné Chine déjà amna fa ñi fa nek loolu mën na leen dimbali daal pour ñu ben attraper infection bi